asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 29 avril 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi sunu làmb nag tey fële nuy xëy commencé ko mu mel ni ki yëglikaay biiru sunu làmb nag ba mu xëyee daal tey ci seenu gëstu Pikine la ñu xëy awale la leen ci yóbbe nag wala lañ ci jublu mooy dañoo jàpp ne waa Pikine day weeru sulit wii nu jëm weeru dance la fas yéenee doon ci ñoom ndax nag weer la woo xam ne daal seen combat yi ca lañ fi ko fas yéenee jongante muy ay combat yoo xam ne yu mag a mag la ba ca jëkk moo di kii nga xam ne moo di Boy Niang ak kii nga xam ne moo di Lac de Guiers 2 Niang di doomi Pikine Ama Baldé digganteem ak Tapha Tine bu dee luy am la tamit weeru sulet la ñu fas yéene jàmmarloo waaye combat royal ba di combat buur ba nag jàpp leen ne diggante Eumeu seen lay doon ak kii nga xam ne moo di moo Lo ba tey ci mois de su sunu la am ne na moo tax nag mu tudde ko weeru dansé si waa pikin mu mel ni kii daal lu nara tara tara lay doon ci waa Pikine bu nu sa yeggee waaye kenn koo xam ne moom doomi Pikine la te bokk ci bés yooyu moo di Boy Niang sunu làmb ne na tey jii nag lay wàcc aéroport dugg si Sénégal ngir fas yéene nag commencé ci liggéey bi nga xam ne moo ko war a ci digganteem ak kii nga xam ne moo di Lac 2 waaye liggéey boobu sunu làmb na jàpp leen suba ci talaata yi day ca fee nga xam ne moo di 2STV ñaari mbër ya fa def seenum ñaareelu jàkkaarloo muy loo xam ne nu ngi koy xaar sunu làmb xëy tey dinu ko wax leneen loo xam ne moom fekk nañ ko fii nga xam ne moo di ca Leewtoo TV muy démb Pape Abdou Fall ma woote woon stadium Iba Mar Diop mu mel ni ki nag démb làmb ja foo ko takk weesu na ko ci ab neexaay ak ab feesaay mbër ya di yëngu di yëngal musaa jaar fii ak cosaanu lébu ja ka nga xam ne moo di garga jaar fa ca des ak cosaanu séréer ja làmb ja neex lool waaye boo bëggee dégg dégg daal ñoom ñaar day ba ñu songoo bëre loo ci mën a dégg avertissement ya jóg Moussa Ndoye daal di nag yaram wa tàng mu songi garga garga tëru ko jàpp ko waaye Moussa daal ba muy mbot garga da koo suru xal mu dugg ca biir garga bës ko daan ko jël bu leer nañ te Leewtoo TV la ñu fekk loola mu mel ni ki nag démb moom jàpp leen juróom-ñaari at bu dee Moussa Ndoye toog na ko daanuwul de Garga Mbossé démb kale na ko ne ko nag fii ngay yem mu mel ni ki tamit parcelle bu dee ba saison bi ubbee ren ba tey ndamte na leen de démb kii di Garga Mbossé moom yóbbu na leen ko daan Moussa Ndoye jël bu leer nañ waaye beleen day itam di doomi parcelle jël bu mel noone la def njambaan ma nga xam ne moo jóge woon école de lutte Mor te dëkk fa nga xam ne moo di ca Géejawaay mu mel ni ki daal démb moom stade Iba Mar Diop taroon na lool dëkkante ba mel ni tulleeg màlle mbër ya yëpp wàcc nañu waaye am na ñoo xam ne nag ñu ngay joxe seen xalaat ca jël ba Moussa Ndoye daanu Omes Diagne nee na li leer ba leer day kii nga xam ne mooy Moussa Ndoye défensivement da cee wal défensivement moom da cee feebal maanaam daal mbirum défense moom ayu ci waaye mbay ndewaan di ko subawal mbooloo ne na tafaat kii nga xam ne day moom moo di kii nga xam ne moo di Moussa moom ni mu bëree wala garga moom ni mu bëree baax daal def na ko waaye kenn koo xam ne tamit wax na moo di carré mooy kot su door dóoraat nee na kii nga xam ne nii day moo di Moussa Ndoye a gis ay coup ak i bët waaye Alioune Sarr ma nga xam ne nag moo yor Moussa Ndoye nee na li mu jaawale mooy gaawaay ak attaque maanaam daal vitesse ak lii nga xam ne nii moom moo di précipitation ñaar yooyu la Moussa Ndoye jaawale moo tax lii ko dal dal ko waaye dañuy continuer nag dem ci leneen loo xam ne nii ca Leewtoo TV wala Leewtoo point net Fallou Ndiaye moo fa taxawal ab combat diggante ki nga xam ne nii moo di Tyson 2 ak Gora Sock waaye Fallou ba tey rek mu ngay taxawal leneen muy Franc ak kii nga xam ne moo di ngeer waaye Fallou Sall bëgg na ko te na bu amee ci benn bés la koy tëgg jàpp leen Garga 2 Pape Mbaye Fallou Ndiaye nee na mu nga ca waaye doomu dàngu ak Farouz itam Fallou Ndiaye ba tey dugal na ci ay loxoom te nee nag yaakaar na ne combat moom taxaw da koy def Fallou Ndiaye moo jaar foofa bëgg koo boole ci benn bés boo xam ne daal day am leneen loo xam ne moom amoon na ci weekend moo di réunion ci Leewtoo point net du waa waa CNC ba ñoo ko amaloon ci njiital na ci dimanche ji moo di lamb simple ci Adrien Senghor un million lañ fa tegoon waaye kii nga xam ne nii nag moo di équipe Ibou numéro deux moo fa daan hôtel Joor daal di jël la ñu fa tegoon mu mel ni ki daal li leer ba leer day weekend bi tàngoon na jër jër jër lamb ji joxoon na stade Iba Mar Diop Adrien Senghor waaye loo ci mën a dégg daal làmbay sunu cosaan waaye Garga musaa Moussa Ndoye waruñuy gëj ci làmb li tax Talla Ndiaye mu wax lii mooy mbiri cosaan lanu te réew nag balaa ngay gëm sa bopp da ngay jéem a xam sa bopp ba pare waaye daal loo ci mën a dégg démb man Babacar day kontaan naa ndax cosaan laa gis Garga dafa njaaj séréer sa wër ko mu wàcc rek wuti ndën ya Moussa Ndoye joowu gaal dem na géej wuti ya mu mel ni démb Maodo fay ak katu yaraax ba Taala Njaay xam nga njaajaan jinne jinne xam sa kër te xamoo këram la ñu tëggal kii nga xam ne moo di Moussa Ndoye Garga Mbossé ñu tëggal ko te fañin fañin to fañ-fañ to wàccaacaa mooy loo bañ-bañ nguur du tere bu yàlla tawee day taw ci toolu nguur Talla Ndiaye tegal foofu sa baaram salaamaaleykum mbokk yi sur Leewtoo TV yëpp ñu leen nii bu baax di leen leen jaajëfal leen wax euh, namoon nañ leen bu baax parce que vendredi ba léegi yàgg na ñu ñëw yéen seen revue de l'arène moom nekkee leen koy andilee chaque jour de la semaine ñu ànd see sama mag sama xarit Babacar Babacar nuyu naa la Aïssatou Faye madame Niam maa ngi lay fay ah sama rakk sama xarit maa ngi lay nuyu bu baax baax di la namoon naa la parce que depuis weekend bi ba tey gisante wuñu mais yaram mi léegi mbaa lépp jàmm daal yàlla na jàmm yàgg kon comme ni nga ko waxee rek ñu ñëw yaa nga déglu question yi sant bu baax a baax a baax yàlla na yàlla xeeb doole ñu dem si jàngat bi dem si li nga xam ne ni moom na sunu la am andi tey jëmale ko ci mois de juillet ak euh, waa Pikine leen di xaar parce que nee na juillet bi nar na métti trop foofu noonu parce que ama mun na am mu daje ci ki nga xam ne ni mooy tafaatin booy ñaaka combat am fa lañ ko kale kii di ëmma seen combat fa lañ ko kale maanaam pikin bi daal tenooru euh, tenooru pikin yëpp juillet daal amaana la ñuy wàcc si lamb ji Babacar waaw mois de tous les danses comme ni ko journal bi waxee ah loolu nag li ñu si mën a wax mooy bu dee combat yi moom boo ko jëlee benn par benn amu si benn combat bu yomb ci kenn ci ñoom bu dee la kaada booy ñang la diggante mag Lac de Guiers numéro 2 ku ne war na xam ne boobu combat mënta yomb parce que lu tax mooy enjeu yi nekk moo bëri ndax booy ñang ku ne xam na ne vision bi mu am ba mu duggee géejawaay ba tey mooy maanaam mbër yu mag ya fa nekk mu daan leen yàlla nga koy dimbali fa dajale yëpp daan na leen ñan yan mbër yu mag a fa des actuellement mooy Lac de Guiers 2 ak Balla Gaye numéro 2 tey yàlla na ko mu ngi daje ak Lac de Guiers toppi Balla Gaye 2 parce que ak ñu wax ko ñu bañ ko wax it ambition bi loolu la yaa ngi dégg waaw yàgg na ko bëgg xëy nag pour moom lii bunt bi ko koy may kon nag weer boobu ci mois de juillet bi liggéey bu réeréy la ci am daa mel nag xam na ko ba dem liggéey waaye ndax dina daan Lac de Guiers numéro 2 loolu tamit question la parce que est-ce que adversaire yi mu doon dajel Guédiawaye ñoog Lac de Guiers 2 ñoom ñoo yem loolu tamit dama naan am te fii lay entraîné te itam ku ko waaw ci place su Sénégal xaw ma place su Sénégal yi daal fi lay entraîné te saa bu summee ko stade doone Lac de Guiers 2 mi liggéeyul wala néew na doole wala nangam sangam da ngay gis nit ki booy xool sportif vrai vrai vrai wala ku professionnel da koy gis si moom booy ñang tamit ci lancé boobu la ne muy combat boo xam ne bu nar a metti lay doon ci ñoom ñaar yi côté yëpp kon ku ko yombal kenn ke rek yaa ko ko xañ bu ko ñàkkee bi ci des mooy war a nekk combat bu fekkente ne am na comme niñ ko waxee la ca laxasu moo bëri ndax ama dafa daanoon tafatin tafatin ñu ne ko li tardel sa carrière mooy daan bi la ama balde daan parce que waru koon laa daan am na ñu ko ko wax mais dama naan loolu d'accord ma ci parce que ndax d'accord ma ci ku lekk sa avance jàppal ne dafa pare pour daan la te ama balde ku daan mérito na daan la ndax làmb may na ci boppam lu ko cër bu tol noonu ndax lu mu liggéeyal boppam ndax yemul ci fàllaay sama papa kese boo boo ca yemee loolu képp doyul da ngay ñëw nga am loo ëndaale waaw ndax nag dañ ne bu la sa baay mayee nax la bu la sa yaay mayee nax la mii loolu liggéey yaa moom kon mérito na daan tafaatin lool bu nekkee ci kaw tafaatin mu war ko dindi tey ñu dem ba ne combat ba taxawaat na wala ñu ngi naan mu ngi taxaw ah tafaatin itam day bëgg la ko amaa defoon mu fayu ko kon jàppal ne bés yooyu moo lay wan ne que muy ama muy tafaatin boobu combat itam du nekk combat bu yomb ci ñooma parce que bu ama foogee ne tamit la mu defoon day ñëwaat mu yombaate noona est ce que loola lay demee mën na koo gëm waaye est ce que tafaatin ko may loola yaakaaruma ko kon gëmal ne boobu combat tam bu amee di nga gis lu doy doy waar ci ci waaye nag la may wax rek ambition rek moo ciy génne ku ne ku ëpp bëgg-bëgg bi bis ba buñ ca yeggee Eumeu Sène Modou Lô moom wane na boppam waaw booba moom li tax mu wane boppam mooy Eumeu Sène Modou Lô da koo daanoon ñu seen premier combat Eumeu seen waxal boppam ci làmmiñam ne nii mu ni ñu ma daane kuy jàng bëre lañ koy daane loolu mooy moom li ñu ko daane kon dafa jàpp ne daal yëfu waaw dafa yomb parce que moo ko waxal boppam ba des mu ne ku ko dóor yet bi abal ko mu fayu kon jàppal ne ba pare mu yor couronne roi des arènes te diggoon ko waa Pikine fexe ba yóbbu leen ko muy lu nga xam ne du sens mais mérite la parce que da koo liggéey mu war ko conserver téye ko muy def premier sortem ak Modou boo xam ne daanoon na la kon Eumeu Sène wër na ko ne tey combat bi mu jëm combat la bu nara métti ci moom dafa mel ne xam na ko ba mu ngi ci dina nangoo daanuwaat ndax dafa jóge ci defet bu méttee méttee métti ki nga moom la ñëpp jàpp ne muy wu jëm ko daan bërki dem muy Balla loolu daf ko bëgg a fayeeku beneen bi ci des dafa soxla couronne roi bi Eumeu téye ab kon jàppal daal ñetti combat yi moom Pikine moom à ah, mois de juillet bi seen mois de juillet xaw ma nag nu muy génne nuñ cay génne ñu ngi ñaan daal làmb yi am ci jàmm jeex ci jàmm que le meilleur ba tax na dañuy dem ci ki nga xam ne nii mooy Garga Mbossé démb moo gañe ki nga xam ne mooy Moussa Ndoye fële ca stadium Iba Mar Diop mu nekkoon Babacar combat boo xam ne début bi timit na mais bi songoo amee rek je na. waaw parce que début bi noonu ginnaaw bu ñu nee promoteur bi ko tëggoon muy Pape Abdou Fall ak promoteur yi mu jiite yëpp làmb ji dem neex na macha allah animation culture lépp feeñ na fa euh, li tax la début bi timit mooy que ñaari mbër yi boo xoolee. Euh, Moussa Ndoye dinay faral di attaqué mais démb dafa boo xoolee attaque bi dafa ko mel ne lu ko xaw a wàññi yaa ngi dégg garga nag ay attaque boo xoolee riposte la gën di def ci làmbam Moussa Ndoye nag li ma gis ci combat bi mooy njumte dal na ko ci sama jàngatu boppam ah. parce que li tax mooy njumte bi mooy moom dafa nekk ci dynamique de victoire ne nañ depuis sept ans daanuwul gëj na daanu ne ci dynamique bu neex mais dafa boo xoolee moom ci combat combat ba mu taxawee ba tey ni muy communiquer ak ni muy doxal dafa mel ni moom garga moom moo moo moom mooy ut ci garga mm-hmm. wala moom moom garga da koo devancer yaa ngi dégg moom loolu nag bi ko garga xamee moom tamit comme garga itam du mbër mu ndaw garga delloo ko loolu jox ko bis bi bàyyee koog moom bàyyi koog lépp lépp lépp jox ko ko déglu ko loolu te lool pièce la avantage su garga la Moussa Ndoye nag bi avertissement yi bi mu jëlee ñaar garga jël ñaar léegi moom comme moom boo xoolee communiqué euh, ni mu doon waxe ci làmb ji ak ni mu doon ni doxale ci biir stade bi léegi day kut kut nee na kut kut léegi day day attaqué ji attaque bi mu def nag attaque ba bi mu koy def fi garga gis na ko mu ñëw mu tëru ko jàpp ko parce que Moussa attaque bi sax dama naan du attaque bu normal parce que mën nga ko tudde sans yooru moo tax garga bi mu ko tëroo jàpp ko sol ko ñu téen de foofu Moussa di déclenché boot garga te garga moo ko sut bi mu déclenché garga dugal ko mu surux dal di dëpp loolu nag liñ ko maanaam liñ ko ci wax mooy encouragé euh, encouragé ko parce que depuis gëj na daanu ay at di daan ay doomu jàmbur lamb noonu la sport la garga mbos tamit li mu am dem mérito na ko parce que mbër la bi nga xam ne comme li may wax rek garga xëy a waaye garga a dépassé mooy garga mbër la bu nga xam ne nii macha bi mook di garga yàlla dogal mu gañu ñu koy félicité di félicité waa parce que tamit soxla woon nañu ndam li dugal na ko fa dem mook Blindé ku ci ne gañ nga dem mu mel ni que daal euh, liñ ne rek Aysatu xëcc bu dagul dikk dem am na daal mais lamb ju neex am na dem stadium Iba Mar Diop neex moo amoon dem ci stadium Iba Mar Diop ñu si félicité kii nga xam ne nii mooy Pape Abdou Fall mi ko organisé woon ak ay mbokk promoteur am nga xam ne ñoo ko jàppale ci bis bi comme ni mu koy waxee chaque jour mais dañuy dem si ki nga xam ne nii mooy euh, Fallou Ndiaye Fallou am bés ñu naan ñu yegg seegul Fallou andil ñu yeneen affiche maanaam andil ñu ki nga xam ne mooy Franc ak euh, Nger andil ñu góor Gora Sock Tyson 2 te Fallou nee na pareegu si moom daal nee na fin de saison bi après koor gi bëggul dara mu sedd incha allah waaw noonu ndéwénal Aïssatou daa war am bu nu waree ba wootee dañoo war a am ndéwénal bu duuna duuna doon xam naa Fallou loolu la xam ndax xam nga ne Gora Sock ak Tyson 2 loolu ñi ko bëggoon bëri na wala ñi ko ñi bëgg ñu bëri bëri na nga indi ca Nger ak Franc loolu tamit nekk combat bu neex a neex a ba pare mu ngay dox faruus ak ki nga xam ne mooy doomu dàngu nee na ma sori na ca mu ngay dox Pape Mbaye ak gërgë di nee na ma sori na ca te ne loolu lépp da ko bëgg a boucler combat yu def ko ci benn journée ca arène nationale dafa mel ni kay fàllu yaram combat yu kese kese kese la dajale yërëy yërëy te bul fàtte ne samedi moo tëgg ki nga xam ne nii moo di ondu la ak Ada Fass dimanche ji Assane Ndiaye andil ñu ki nga xam ne mooy tonnerre numéro 2 ak gin bu yoof mu mel ni ki daal Assane ak Fallou ren seen yaram day xasan xaw lu leen mais am na lu leen dugg nag mais loolu tamit du ñu mën def lu dul ñaanal leen yàlla parce tamit loolu mooy loolu lañ soxla ah tamit amateurs yi bu ñu dañ di jox combat yu neex te combat yu Fallou Ndiaye composé yi Assane di composé ak Kandji ak Pape Abdou Fall ak Dieye yëpp a neex mm-hmm. macha allah kon daal dañuy nuyu promoteurs yëpp xam nga ñaanal leen jàmm ñoom Mor Mbaye xam nga jamaïcain ñoom xam nga buñ limee dinañ juum sam sam production sama waay di leen ñaanal jàmm daal parce que ñoom il faut ñuy am xaalis lamb di mën a am te gis nga di ñëw maanaam mbir mi jàllaa ñoo kon daal dina neex borom bu peex waaw loolu lañ ciy xaar ñun ñi xam ne ñooy nekk ci lamb ji ak amateur lamb gu neex daal lañuy la ñuy ñaan à chaque fois Babacar dañuy dem si beneen euh, lamb mooy Lac 2 ak Boy Niang parce que Boy Niang si ngoon te di a amal ki nga xam ne ni mooy Boy euh, Lac de Guiers. waaw tey lay ñibbisi moom na Japon ci invitation bu ñu ko fa defaloon waaye a ñëw Sénégal a jàkkaarloo ak Lac de Guiers 2 ah, moo lay wan nekkoon fi mu nii daa mel ni liñ koy faykat yi waxee rek wure waa ngi waaj a dem këng waxi mag a ngi bëgg dem dañ taali faw bëre am te bu bëre amee jël dina am ndax mois de juillet ngi ñëw mu ngi raam di ñëw yàlla nañ ko fekkee de tal ko parce que déjà avril bi moom parce que yàlla def na mu ngi jeex yaa ngi dégg tey lañ ñu ngi le 29 mais moo fii ne juin ñu dugg juillet kon deux mois ci des kon nag fi mu nekk nii lu waay doon jaay léegi mu lam te ay satu noon naa la booy ti ker ba jant bi so Aysatu lalle waxoon naa ko Talla njaay fi mu nekk nii lalle jot ci ñoom ñaar waaw parce que dootoo jarle di ker jaay ba jant ba fay du mën a ñàkk. mais Babacar face à face bi mardi lay doon incha allah nit ñi di ko xaar parce que ñoom ñaar nag seen jokkalante nit ñi nam nañ ko. parce que dañoo tàngal ñaari yoon naa xam nga ñetti yoon bu bu amee suba mooy nekk ñetti jàkkaarloo dëkk ñu dañoo jàkkaarloo des TV waxante mu tar ñu jëm fa jóge Kaolack waxante kere ba ay waat jib fa suba nag bàyyi jaa leen kaay leen ma dolliwaat ku des TV. ñu xool fu ngeen toll parce que faw gars yi xam fu gars yi toll amateurs yi loolu dañ koy soxla mm. mais bàyyi daal mention spéciale mu koy nuyu di ko ziar moom sama soppee la Baye Ndiaye sama sama la waa baax. waaw Baye Ndiaye dañ koy encouragé ci affiche bi mu dëtmal parce que du combat bu ndaw combat bu mag la tegal li may wax rek lamb simple jàppal ne chaque dimanche ku nekk rek mën na jël parce que noonu lay doxalee des fois yi lay passé rëg-rëg a teglante woon ñu ñëw boobu dernier dimanche bi mujj a bëre général Malika arrêté ko jël lañ fa tegoon dimanche bi di bëri ki démb Ibou Sangor jël ko Ibou Sangor nekk école de Gana daan hôtel Dior hôtel Dior tamit bi moo lay wan mu ngi dox ay jiwam bu baax a baax a baax Aïssatou Faye waaw waaw mbokk yi sur TV li lañ leen andiloon ci seen revue de l'arène ñi ànd ak ci caméra bi ak montage bi di équipe bu Leewtoo TV bi yëpp ñoom day Kumba Massar Mansour bu moo maane Iba célibataire bu mag bi nuyu équipe bu Leewtoo bi yëpp di jëfal ñëpp di jëfal euh, Ousmane depuis Italie Ousmane Diop di ñu bëggee Babacar euh, lu bëree bëri di bëggee amaar Gueye itam depuis itali chéri Nogay Nogay maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Italie yëpp di la wax na mën naa la trop sama rakk jooju noonu di nuyu ñoom Mado ñoom Sukayna képp koo xam ne nii rek yéen a ngi bëggoo Leewtoo TV maa ngi leen nuyu baax di nuyu sama borom kër sama goro samay njëkkee sama yaay duma ko fàtte mukk borom bés boobu noonu suba la incha allah Babacar. waaw kon ñu nuyu sa goro yooyu rek ak sa yaay ak say njëkke yi ñëpp ñaanal leen jàmm comme ni nga ko waxee nuyu nga waa kër gi waa Leewtoo yëpp ñu ngi leen di nuyu mais tamit. ku nekk rek am nga ay soppe te ay satu soppe dafa neex te Babacar defagul sa lu tax xëy na ay nit di ko euh, taxawoo noonu ci wàllum cofeel mais awma seen fay ñoom ñooñu na groupe whatsapp bi nga xam ne fan fans club Babacar ñoo ko créé di ci invité ay mbër di fa waxtaane làmb bërki démb gànja faama la woon suba si leen di ji zal bawal la ginnaaw suba l'an 2000 la kon ñoom maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñoom grand laay ak Abdou Touré ak Jib Seen ak Jiga ak Codé ak ñoom ñëpp ah Cédric Pape Ndiaye ñoom ñëpp nuyu naa leen mais tamit comme li ma wax rek soppe yi fu ne dañ dañ la fay ziare di leen nuyu ñoom ñëpp waaye nag dama nuyu ñoo xam ne bu dee siiw la xëy na siiw nañu mais tout le temps dañ lay wax seen mbégte dañ may wax seen mbégte muy ku mel ni mbay si Ndiaye di tëggkat Wally Seck xam nga ko bii rek ndeysaan ñu ngi jokkoo téléphone muy mu may encouragé di xam nga kon maa leen di nuyu daal ñoom ñooñu ñëpp maa leen ñoom Tafa ñu ngi maris gaa yooyu xam nga mais ki nga xam ne ni tamit moom moo di euh, Louis Senghor parce que dama koy tudd la bëri parce que li tax ci Babacar di madame Diouf di nuyu borom këram docteur Makumba Diouf daal jàppal ne daal waaram daan yooyu nga xam ne dañu sopp Babacar lool moo xam dañ ko dalee ca kaw Wally Seck wala Papa Thione ba ci suuf maa ngi leen di nuyu di leen ziar ñoom ñëpp xam nga Njoogu Mbay nuyu naa ko ki nga xam ne nii mooy di tamit Youssou Dieng ñoom ñëpp parce que ay soppe Babacar lañ maa ngi leen di siyaar mais Talla Ndiaye kenn du moom filma moom na ko monte itam mën na ko temps yi nag dafa bëgg dellu booy xaw ma ndax day wut beneen xale wala de lébu daal war nga def ci lii enquête lébu lii lay bañ a dégg de simis yi bees na jiin yi bees na tronique yi tar na taala noo nar wax ma ko man moom maa ngi ci lébu ba géej gi fere bu jox rendez-vous allah